Karim xurum xax waaw Karim nag saaga nañu quoi ñun ñu ànd ak Sonko quoi parce que nee nañu du ay patriote ay taalibe lañ mais loolu j'entends par moom moom amul xel taalibe daal fu ko sëñ bi yóbbu rek fa lay dem quoi moom du utiliser mentalam kon yow dañu li ñu élage ju waxoon loolu comme ay xaj quoi tu vois may laaj ndax tey jii taalibe yi bu doon defee noonu est-ce que kon sëriñ dina toog ne Amadou Ba futur président taalibe yi du mu fa leen ñaata yoon la Sénégal sëriñ joxe ndigal ne voté leen diw bu ñu demee ko kon taalibe yi est mala lañ kon kon taalibe am nañ xel mais sa xel moo toll foofu noonu quoi beneen tey ji la ñu benn euh, benn di jàng ay xasidam seex wala benn benn euh, euh, tijaan di jàng ay taysir Alaaji Malik nga ne du jullit ah lu ko sëñ Tuubaa jaay lu ko Alaaji Malik jaay pourtant jullit diina la leen jaay

parce que seen xeex bi amul vous n'avez pas réussi à impliquer la population te Sonko feex na ba impliqué ndaw ñi màgget ñi diaspora beeg ñëpp donc kooku du seen morom ba nekk président fal maire fal député ah c'est quand même li nga war a bàyyi xam critique dafa am critique positif et négatif parfois da ngay dégg ay critique négatif mais fu mu ne xam nañu soxla ay critique positif parce que dañuy soog a toog santé yu bees lañ quoi tu vois te venant de APR rek dafa doy ñooñu diaboliser naa mu leen defal gouvernement waak doo leen def résultat ñooñu dafa doy yow da nga nekkoon si ñun ñu bokk